yàlla jërëjëf Pastef bi kawe na jëf tabarkàlla jërëjëf jërëjëf sëñ Fallou eh, jërëjëf sëñ Xaadim yow itam ci kàddu yi ak Pastef bi tabarkàlla yàlla na yàlla barkeel te gën leen dëgëral foofu bu baax yi ak mboolem mbokki taalibe yi leen fay jàppale yëpp liggéey baa ngi noonu incha allah moo ko defee kon xam naa eh, dañu jox waa Touba Espagne ñi nga xam ne ñoom it ay jàmbaar lañ yoo xam ne eh, ñoom it liggéey bi kenn kenn kenn kenn mënu leen ci boo defee xam naa ñoom ñi leen mi nga xam ne moo jiite fédération bi teew na àndanteeg sëñ Baye Dame Lo mi nga xamante moom Cheikh Moustapha Al Karim mi nga xamante ne moom liggéey bi moom amu ci maas mooy coordinateur général bi ci Touba Espagne ak ak sëñ Assane Diop mi nga xam ne moom kenn umpaleetul mbiram ci taxawaay bu mu am ci liggéey bi kon xam naa damaa xamul kan mooy wax ci seen tur ñoom ñaar sëñ sëñ Modou Gueye itam àndante na ak ñoom moom i teew fi teewal fi waa Touba Espagne ak mbooleem mbokki taal bi nga xam ne ñëw nañ ci seen gannaaw te xëy na bi ñuy bind kayit wi jotuñu leen woon a gis damaa xamul ba xam jëwriñ sëñ Mbàkke Njaay la ñu jox wala sëñ Modou Lo wala sëñ Assane waaye nu ngeen ko nu ngeen ko déggoo seen biir rek kon kon kon damay jox sëñ sëñ Baye Daam Lo moom sëñ Moustapha moom Cheikh Moustapha al Karim ko defee mu wax ci turu waa Touba Espagne gépp ak ci turu jëwrinam sëñ Mbàkke ausu billahi min asheytan irajim bismillahi rahmani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di leen balaax di leen balaax di ñaan suñu borom boole nu jéggal nangul nu liggéey bi nga xam ne noo koy liggéey kenn ku ne ci turam ak santam. di jiital ci niyo bi sunu jëwriñ muy sëriñ Mbacke Ndiaye dañ koy ubbil rek mu jàllale kàddu yi nga xam ne moom la war a jàllale ci Espagne gépp ndax fédération bu Espagne buñ ko dee wax. mooy jëwriñ ji a ah, bu dee mu xaddimatul xidma sëñ Assane kon ñoom ñaar bu ñu fi nekkee man dama leen di ubbil rek bàyyi leen ñu àggal liggéey bi Espagne moom ku ne xam na ne liggéey bi mu ngi ciy dox bu yàgg ba tey dox boo xam ne ni yéeme na loolu moom wér na àdduna bépp bu ñu demee ba nga xam ne jumaay Touba sëñ Muntaxa moo woo sunu jëwriñ ne ko yéen laa ko sose muy alfumra yi nga xam ne moo ci nekk ne ko na ngeen ko def te mu cayib ñu def ko ba mu àgg mu woowaat ñu boole ñoog sëñ aafiya a ah, nenu jumaa jàngoog kon nun mënunoo yam kenn ci jumaa ji dañ ñu ko féetale ñu féetale ko Espagne muy lu wóor loo xam ne ni eh, eh, àdduna bépp xam nañ ko ñu di ci dox liggéey bu kawe kon kàddu yi du mën a gudd damay ubbil sëñ Mbàkke rek ak sëñ Asan ah na waaw kon ñu jox suñu jëwriñ sëñ Mbàkke Njaay mu àggale ci ñoo ngi sant nag Espagne gépp nun ndax li tax ñu di leen sant ñoom ñëpp fu leen woo ñu fa bu ñuy wax juróom fukki dayra ak ñett sax ña fa ñëpp wuy seeguñu bari na ci ñooñ wuy si nañ te ñu ngi jox dox ci liggéey bi bu baax kon nag xanaa dañu gàttal kàddu yi rek jox sëñ Mbàkke Njaay mu àggalee waaw ñoo ngi sant nag sëñ Afia bu baax ak euh, mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi di leen balu àq nag bu baax di leen baal àq di ñaan suñu borom bi boole nu jéggal yàggal fi sëñ mun Muntaxa bu baax a baax jërë leen jox sëñ Mbàkke kon kàddu yaa ngi bismillaahi rahmaani rahiim barkat seexul xadiim noo ngi sof sunu nuyoo ci nuyoo yi fi jàll yépp di ñaanal sëriñ Tuubaa Seexul Muntaxaa mu yàgg fi lool te wér ak njaboot sëriñ Tuubaa gi yëpp di jël nuyoo bi teg ko ci loxo sëriñ Aafiya Buso ak mbooleem njaboot gi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi danoo xam ne buñ duggee ci lim duñ matal waaye bu ñu tuddee suñu affaire rek ñëpp a ngi ci biir ñoo ngi leen di ñaanal nañ ci kàttan Yàlla yonent bi Seexul Xaadim liggéey bi sëriñ bi teg ci suñu loxo ñu am ci ndamal sëriñ Touba ñoo ngi rafetlu bu baax kàddu yi fi jàll maa ngi koy wax suñu Assane Diop léegi ma ne ko mbir de bu yokkoo ak sant ci war waaye ma ne bi ñu fi taxawee daaw ak liñ dégg ren ak yokkute am na ci te mbiri sëriñ bi moom tayam ju nekk gàccaal na démbam kon mel na ne ak yokkute am na ci waaye nag taxagul mu doy ba tey nan fexe ba mbooleem ñi nekk Europe Afrique Amérique yëpp bokk ci liggéey bi ndax liggéey bi kat day liggéey boo xam ne njëkkante la jumaay Tuubaa ji def ci njëkkante la ku ci sunu borom dimbali ba nga mën a jël sa ñaq di ko ci def war ngaa sant yàlla nit nga yoon ay milliards tëdd tëdd mu tëdd mun cee yëkkati benn dërëm def ko ci kooku sëriñ Tuubaa moo ko ci liggéeyloowut ñu ne jamono yi ñu sëriñ bi jox mukket yi wérantuwu ne am na jëmm yoo xam ne bu leen ko joxoon mën nañ koo def ci lu gaaw waaye ñun la ko sëriñ jagleel ñu def ko nam ko bëggee mu joxaanu leneen kon ñun jumaa ji ku ciy wax ñun ngay waxal daanaka moo nanoo bañ a wax ndax ñun sëñ Tuubaa daf na koo féetal ñun waa Espagne kon ku ci ñëw rek dana ci xajal waaye ñoo ko moom loolu moom waaw sëñ Afee moom xam na ko sax ak yéen ñi fi toog ñëpp kon nag ñun moom nanoo bañ a wax waaye nag santaan nañ ci yàlla bu baax ndax kàddu yi fi jub yëpp dafa mel ne liggéey bi dafay door a door nañ ci góorgóorlu nag ba buñ yem rek ci wax nañuy jëf ndax wax ak jëf kër danoo soree lool kon bu buñ waxee ñii ba ñëpp dégg buñ fi jógee nañ ci fas yéenee jëf waa Espagne nag maa ngi sant ñëpp di gërëm sunu way jur wii ñu dendal bàyyi daam loo ndax liggéey bi doon na dox waaye daaw jéeg bi mu xalaatee ne nañ ko def benn fédération moom mi leen teg ca kanam mook sëñ Assène ñuy soññee liggéey mu xaadimaatul ma wax dëgg yàlla yi tamit ñu am ci ak yokkute gu wér donte ni mu ko waxee ndax Espagne lu mat juróom-benn fukki daayira ak nangam ñoo booloo nekk benn fédération ñi ñëw xam na ñi ñëwul ñoo ngi leen ciy woo ñi ñëw jërëjëf ñi ñëwut ñoo ngi leen ciy woo ndax mënuñoo dem bàyyi kenn ñi dikk a gudd nag bu loo yàlla dogalee ñu seetaan lii ba mu ñëw ci ñoom nan xam na ñoo ci jiitu te duñ ci yam waxoon naa suñu maam daam loo mii ne ko jëlal numéro yi jëwriñ yëpp nga woo leen ci suuf koo ci wool yaral ko liggéey bi ba boppam ubbiku ci dana ci dox loolu tamit des na ci dox incha allah suñ kémt lay kàttan kon nag dañuy bañ a guddal ndax waxtu wi daf ñoo xoj waaye suñ sedd na guy ñoo ngi tàllal sa loxo waxuma la sax Espagne dama koo jëlale waaye képp ku ñuy dégg te diñu teewlu te mbégteem Sëriñ Tuubaa di sa mbégte na nga jàpp ci liggéey bi ndax kat àgg nañ ci foo xam ne man danga faral di wax ne ku ci jàpp mu dem ku ci jàppul mu dem kon jàpp gi moom teg sa loxo la rek waaye nañ ci gën a soññewaat bu baax te xam ne dafa bokk ci ndénkaani Serigne Touba yi muy bérébam bii te ñun ñi kenn ku si nekk sa kër defar nga ko ba tey ji kilifa ku fa mën di ñëw rusoo mu dugg fa rawatina kon fii Serigne Touba tëdd nun ko bëgg a def nañ ci góor góorlu ci taaral gi bu koor gi ñëwee leen fa war a jëfandikoo ndax kenn ku si nekk bu koor ñëwee waxtu doo ko jotee da nga bégal sa waa kër ana kon way doo way dox yi nga xam ne dañuy dox ba yem ci jumaa ji nu leen war a def nañ leen di jàpp bu baax di jël addiya ji di ko yónnee ñu ciy teral ñi nga xam ne ñooy dogoo ci jumaa ji bu màggal ñëwee ñu soññee li koy taaral ak li nga xam moom lañ fiy fare nañ ci fas yéene jàpp bu baax a baax ñoo ngi sant bu baax di gërëm ñëpp maa ngi jéggul ci kàddu gi lu ci dëngu ñu jéggal ñu ko ñoo ngi wax ci tuuru waa Espagne gi yëpp sëñ maam daam loo Baye Ali waroon na fee teew yàlla daal dogal mu dellu ca tool ya waaye teewal nañ ko fi teewal fii waa daayira bi yëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. tubarkàlla jërëjëf sëñ sëñ Mbacke Ndiaye mi jiital waa fédération bu Touba Espagne sëñ maam daam loo moom Cheikh Moustapha al Karim ak sëñ Assane ak mbooleem ñi nga xamante ne ñoo nekk Touba Espagne ñëpp di liggéeyal sëñ Touba foofa waaye di feesal seen liggéey ci ci ci ci jumaa ji xam naa waa Touba Belgique euh, sëñ sëñ sëñ Mourtala Amar teew na fi ak sëñ Xaadi xam naa dañ koy jox moom mu yëkkatee kàddu incha allah ndax mi ngi doon bëgg a yewiku bu ko mu yëkkatee ay kàddu ci waa Touba Belgique ah, ak li ko wër yëpp waaw Belgique ak ak Hollande ak eh, Hollande waaw ak ak li ko seq barakaatu ah, mbokki taalibe yi ma fekk fi yëpp ah, maa ngi leen di jox ab nuyoo bu sel di jiital ci nuyoo bi sëriñ Muntaxa Mbakke xalifatul xam yàlla na fi yàgg te wér cëng dundam gi yàlla na faw ko képp ku mës a dudd ci àdduna yàlla na ànd ak barke barke bi yàlla na wisaaroo bu àgg ci taalibe Cheikh Xadim yëpp ak umma islam bi yëpp Mbakke bala maa ngi ziar sëñ Afiya Buso yàlla na fi yàgg te wér taxawaay bi rafet na ah may rafetlu jataay bi lool lool lool lool di ci am mbégte lool li wax dëgg yàlla ndamul murit yëpp la di ci profité nag ah di jàllale eh, ziyaarab sëñ Modou Abdoulaye Mbacké di kilifa jëwriñ bu nekk ci eh, kilifa eh, Touba Belgique mooy daayira bi donc mu jiital Abbas suñu kanam mu yore liggéey bi daanaka moom mooy fa suñu sëñ Touba Abbaay moo yore liggéey bi may wax itam Baye Ousmane Baye Fall mi nga xam ne si moom liggéey bii ngeen yore nii moom moom lañ ko teg ci loxoom mooy dox ci kër yi moo koy soññee ci daayira bi mooy dem fu ne di ko wax waaye comme que dama egsi fii nag ñu jox ma kàddu gi dama bëggoon na nag taxaw ab diir rek defaat jàngat sama bopp jàngat ci mouridisme jàngat ci li ñu tiim ndaxte kàddu yi fi rot ma dégg ko fees na sama xol soññiwaat na ma ndaxte dama seetlu ni doomu aadama moom yàlla moo ko tabax dara manqué wu ci tabax suuf rënk ci lim ci rënk lépp xam na si daanaka lépp lu ñu jar mu ngi ci biir ñuy xel suñu xel di ko jëfandikoo kenn ku ne boo génnee sa buntu kër loo mënti rombo ba ci avion lu mu yéeme yéeme yéeme mën ngaa waat ni doomu aadama moo ko def nun murit nag dañoo faw xa doomu aadama li tax ñu faw ko dañoo am Serigne Touba Serigne Touba du ma yegg ci benn bayit parce que man as ndongo laa xaw ma bayit yi waaye li ma leer te leer ma mooy alpha oméga le début lu ko jaas amu fi àdduna wala ngaan kàpp mën naa waat ci téere bi ni moo ko moom kon nasaraan seek occidental yeeg pays développé yi bu ñu góorgóorlee ba seen pays di nes-nes yi ñuy defar lu ne ñun kon suñu mission wàcc na ndax suñu yaakaar àdduna ak àllaxira Seex Xaadim bi mu wàccee ci suuf doctrine la fi indi lim fi indi moom buñ jógaani woon dara yem ci képp di ko jàng moom kese raw ñañ ñëpp kon yàlla nañu yàlla dimbali ba ñuy tàbbi ci mbooloo yu mel nii yéen ñi may dégg mbooloo ma ca Belsi yëpp daayira bari na ñi ñëw ci liggéey bi xam nañ ko ñi ñëwut ci liggéey bi xam nañ ko man Moustapha Amar maa ngi leen di lancer appel daayira bu Bruxelles daayira bu Mons daayira bu Liège daayira bu Hollande daayira bu liggéey Anvers liggéeyu bi Touba bii Moukhaddamatoul Khidma yore am nañ ci laaj naam ñoo ngi ciy nab na bi nag waaye wax dëgg yàlla yeneen liggéey ya fa nekk solo sañ ko yox suñ ko ko joxoon daa dana wees fii lool kon maa ngi leen di lancer appel yéen ñëpp ku ci képp ko xam yaa ngi yewoo ci fédération bi muy Hollande muy lies muy Mons muy Bruxelles muy Anvers nanga nga jokkoog Baye Ousmane Ba jokkoog Baye Abbas parce que yéene tàbb ci liggéey bi te sellal ko te yéen a ci liggéeyal sëñ Touba ndaxte nii ko sang bii waxee sànq sëñ li mu digle woon mi ngi fi te lii nag waa xe mu xar ma di liggéey ci li sëñ Touba digleel boppam la bokkoon kon bu mu ñu jaas mukk wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala barakaatu. Euh, xam naa sax jëlaat kàddu gi day xaw a xat ci man waaye waa fédération Hollande ak Belgique keroog bi sëñ Afia bu sa bindee leetar ne nañ yeesalaat oto bii nga xam mooy neuf place bi euh, sëñ Saliou Jaxate moom sëñ As Jaxate woo ma boole ma ak sëñ Moustapha Amar mii